jërëgéen jëf kon ñun ñoo ngi tudd Modou Fall nekk maire commune Koul commune Koul nag comme ni ngeen ko xamee nekk ci arrondissement Mérina Dakhar département Tivaouane tey nag dañoo dajale woon dañoo dajale woon fi pour lancer formation bi nga xam ni ñaar fukki jigéen lañ ko jagleel ndax ni ngeen ko xamee am na ay jamono bi nawet bi da bëgg ñëw suñu président zone tudd Modou Fall ci ab xalaatam ñu lancé woon benn mbir moo nga xam ñoo ngi tudd woon ASC bu nekk akub toolam une ASC un champ boobu da ba ko defee tam jàpp naa ne fukk ASC ak benn commencé woon nañu wala juróom-ñett ASC nag ñoom ñoo ci sóobu dëgg dëgg dëgg mais nag bu na mu yoon xalaat bu xaw a am solo waa office national de la formation professionnelle danoo woon ni que danoo bëgg a gunge gunge ci ci lan ci tàggatal nu téeméeri nit benn bi nag tey jëlee commencé mu concerné ñaar fukki jigéen. loolu tam mi ngi jëm ci nu ñuy soppalee li nga xam ñun moom la ne bay fii lu mel ni dugub mboq ñebbe ak gerte kon loolu waa Office national ñoom ñoonu koy jagleel suñu partenariat war nag bu lii paasee tam dese na yeneen ñeent yoo nga xam ne kon bu nekk ñaar fukk lay doon ndax xam nga yarum ginaar mi daanaka ñu ba dañ cee sóobu mais xëy na dañ ci def rek mais mooy mënuñu ko loolu tam dañ ci tàggal ñaar fukki nit maraîchage ñu bari ñoo ngi koy def ci noor bi waa wante xam naa ne ñoo ngi def rek ak yéene mais xamuñu lépp loolu tam leen tàggat nit tam bu dee sàmm war naa am am ñax te nag ñax day ja day jafe cher lool loolu tam nañ leen jàngal ni nay bayee pour am ñax nit tam jàpp naa ni wax naa aviculture kon fruits et légumes soo tam def maraîchage lu ëpp da ngay am carotte ak supome basante ak leneen ak leneen pataas ak nawe loolu lépp nag au nga dem di ko jaay wala nga koy kii mu yàqu da leen ni tàggat nu nu ko soppiloo def ko ay confiture ak yooyu ba bu ëllëgee itam soo ko dencee di nga wan am at te daru kon xam loolu am solo la kon non seulement li nga daan jaay wala nga koy teel a jaay di ko mën a denc ba noppi dikk ko daan jaaye na yokk loolu kon wa tam waa office national de la formation professionnelle ñoo ngi leen sant ndax ñoom itam bi nga déggee ñëw gungeenu lan nu waxan tam ñu commencé wu def jàpp naa ni il faut sant leen bu leen sant nag mooy kon sant tam nguur gi ndax ñoom tam nguur gi la ñuy liggéeyal mais nag surtout ñoo ngi sant service technique yi ndax soo demee Mérina ña fa nekk ñëpp mu Cheikh Gueye di tam Lamine Diouf booba ba léegi ñoo ngi ànd ak ñoom Habib ak ñoom Modou di encadrer ndaw yi ndax nag mbay moom xëy na ñu bari ko def mais nag xamuñu lépp. ñoom ñu ko jàng nag màcc ñu encadré leen ban tam nekk ci pandaw ja jàpp naa ne amal na leen njukkal kon daal jàpp naa ne lii moom lu am solo la ndax soo mémétee dara jàpp ne lu ndaw la ñu wax ko ba mu siiw ci Sénégal gépp wala àdduna bépp jàpp naa ne loolu jar naa sant yàlla li jar a gën a gën sant yàlla mooy nga def dara ndaw ñi ànd ceeg yow gunge la ci ba tey jii nga bëgg nekk ci cëppaandaw ja te nag li ci gën a am solo mooy dafa am dara am nag njeexital njeexital ci kenn ku nekk am loo nga xam ne di ko man a def mu nekk am métier moo xam ne bu ëllëgee di nga mën a gis sa njariñ surtout nag mu dajeeg jamono joo nga xam ne mbëkk mi ndaw yi di jël gaal yi bëgg a génn réew mi bari na lool muy nag lu metti ñu jaay ñu jaal wax dëgg yàlla képp koo nga xam ne ñàkk nga si sa njaboot mais daal li am solo mooy nan xam ni lii moom daa am solo ndax ASC danoo yàgg koo bëgg a lëkkale ak développement une ASC de développement ba sax daanaka at yi yëpp ñoo ngi ko doon wax lu man ñaar fukki at mais na ñun yàlla may nu ba loolu ñu doon wax bi yoon ñu dëggal ko ñu bëgg koo dëggal ñu dëggal ko sa lay wax ba nekk nag di commencer di récolter kon nag bu ñu récolter ba pare tam nañ jàpp ne wërta yam ci at mi dafa waral sax dàkk moo tax tam ñoo ngi woo léegi ndaw ñi ni bu récolté daal am na rek lu xalaat dañ koo bëgg dajale benn place rek ku nekk saako ya nga am nga bind sa tur ñu dajale ko benn place nga xam ni bu déwénee kenn ku nekk li nga aman wala ba njëg neexee di nga xam lii yaa ko moo man loolu tam day am lu so day lu am solo ndax ne dama bëgg semence moom képp ku ko bëggati nga ne nan dem seeti kuul ndax kuul kat seen ndaw yi bayan nan mbay ma baaxal na te ñoo ngi ko denc kon nan fa war a am aw jiw kon loolu tam Modou Fall loolu lañ bëgg tam ñu bàyyi ko xel jigéen ñi tam xam nga ñoo leen tàgget mais dañu bëgg ñoom tam bu noppee ñu defar kuréel gu mag a mag a mag loolu sax jàpp na ne commencé nañ ko waaye ñu kuréel gu mag a xam ñoom tam li ñuy def day am tam jeexital ndax nag fi mu nekk am nañ benn protocole boo xam ne dañu ko siñe ak cellule de lutte contre la malnutrition nga xam ni poste santé yi nekk ngaay yi nekk Mérina Pekes Ñaaxeen ak lépp ñun. ñoo leen di jox farine bin dooleel loolu di valeur presque dix millions te lépp nag ñun ñoo koy transformer fii mais comme nag léegi bay na récolte na dañoo bëgg au lieu que koy jënd farine li ñu bay ñu jënd ko transformer ko mu gën a am nag nekk xéwal si ñun kon loolu tamit jàpp naan jigéen ñi daal loolu lañ leen di ñaan ñoo xam ne daal lii moom ab commencé sa règle la mais dañoo bëgg mu yegg foo nga xam ni àdduna bépp dafay yegg ndax nag loolu ñu autorisation Fra. maanaam li ngay defar nga mën ko génne bitim réew même loolu sax déposé nañ ko loolu nag kon bu amee jàpp naa ne war na ko bàyyi xel yokkute la daal ci gox bi àdduna jàpp naa loolu am solo nit moom na fexe daal def loo nga xam ne bu ëllëgee na ko amal njariñ ndax nag li ñu faral wax commune moom commune wala maire mën na jox kenn liggéey war na mën naa yombal ba su lu jox liggéey tam ñu tàggat la foo nga xam ne di nga mën a demal sa bopp ñu nag ci loolu lan taxaw mais du di kenn ne ko dina la jox liggéey ndax mënuñu ko il faut tam ñuy wax nit ñi li man a am état tam lu mu ko bëgg-bëgg xay ne mënu ko mais nag état comme ñun àll bii am nañ suuf nañu fi indil ndox bu soobee yàlla bu boobaa ñu bari xam naa ni dootuñu jël gaal yi ndax nag soo amee suuf amum ndox li ci doole la ak xam-xam comme ñoo ngi tàggat na ndaw ñi kon état jàpp na loolu lu koy yombal doon kon nag ñun tam ñoo ngi koy woo mu bàyyi xel bu baax waa àll bi daal su bëggee mbëkk mi daal wàññi ko na dooleel àll bi ak ndox surtout parce que boo amee ndox am nga suuf am courant wala solaire lu ci desati xanaa daan sa doole dana jàpp naa ne kenn ñu ta liggéey xanaa kenn ngaa gisul rek foo liggéeyee kon tam loolu ñoo ngi ko ñaan état bi bu baax a baax. sant ñëpp di gërëm surtout la presse euh, maire Modou Fall ak ñi mu àndal agis Mbaw ak techniciens yi euh, ak office national de la formation professionnelle parce que bi ñu lancé une ASC un champ ba léegi. à chaque fois ñu ngi ciy ànd ak ñun ci xalaat ci seen moyen ci seen lépp pour que projet boobu jëm kanam tey jii ñu ngi fii di jëmmal formation bu ñu office euh, national de la formation dimbale pour tàggat ndaw ñi parce que réew yaakaar nañ ni ndaw moo koy doxal ndaw ñi bu ñu amee formation rek yaakaar naa lu ñu bëgg a def fii mënuñ ko fi def te jamono bii ñu ngi wax Barça Barsaq birim réew boo fa demee sax boo amul formation da ngay am problème parce que immigration choisie la ñu wax kon képp lay dimbali pour nga former sa ndaw rek kooku mi ngi lay dimbali ci développement mi ngi lay dimbali aussi pour sa gox jëm jëm kanam kon ñi ngi remercier ñëpp mention spéciale à monsieur le parce que bu dul woon moom lii du am xalaat bi certes bu ñu ko amet amuñu woon moyen yu ñu ko defee teyit li ñuy génnee di dem feneen pour du uti xaalis bi moom mu ni ah moom kat mun na ci def lu mu mën teyit wax dëgg yàlla noonu la ko defee bu dee presse mooy woo bu dee euh, intrant mooy joxe bu lay leneen ak leneen mooy def loolu mënuñu def lu dul gërëm ko di woo maire yi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal yëpp mu def ni moom parce que ndaw ñi bu ñu leen formé rek yaakaar naa mën nañoo yóbbu Sénégal fu moo du Fall maire de la commune de Koul la commune de Koul donc se trouve dans le département de Taïwan et dans l'arrondissement de Mérina Dakhar aujourd'hui donc nous sommes là pour lancer donc la formation sur la transformation des céréales cette et cette formation a eu lieu grâce à l'Office national de la formation professionnelle. Comme vous le savez, lorsqu'on a lancé le projet Une ASC, un champ, l'Office national de la formation professionnelle nous avait contactés pour nous accompagner. En faisant quoi? un formant cent personnes dans cinq domaines. Le premier domaine qui va commencer aujourd'hui, c'est la transformation des céréales. Et cette formation concerne 20 femmes. Et après cette formation, il y aura encore session et ça va concerner l'aviculture le maraîchage la transformation des fruits et légumes mais aussi les cultures fourragères et ces formations certainement vont permettre aux intéressés d'avoir au moins une qualification si nous prenons par exemple cette première formation les céréales locales à chaque fois nous produisons mais malheureusement nous bradons nos récoltes à vil prix et une fois que cette technique-là est maîtrisée elle va nous permettre non seulement de pouvoir garder les récoltes mais aussi d'avoir une plus-value Pourquoi une plus-value? Si par exemple on réussit à transformer le mille ou bien l'arachide ou bien le ñebbe ou bien le maïs, certainement on pourra avoir d'autres produits qui seront vendus à des prix meilleurs. Mais vous me permettrez de féliciter le président de la zone, en l'occurrence Modou Fall ici présent. Parce que si cette idée-là est née, c'est grâce à lui. mais aussi le technicien Cheikh Gueye et Lamine Diouf qui n'est pas aujourd'hui présent mais aussi Abim Mbaw qui ont depuis le début géré ce projet à merveille c'est pourquoi presque partout au Sénégal vraiment les gens parlent de cette initiatives venant de la commune de Koul une ASC un champ et là ce n'est qu'une continuité de ce projet-là qui a été lancé depuis le début de l'hivernage effectivement vraiment une grande réussite une grande réussite d'abord pour avoir osé parce que on a théorisé vraiment le donc une ASC de développement depuis très longtemps mais on n'a pas depuis longtemps pu conclure la mais ici avec la Covid 2019 on a réussi vraiment à concrétiser donc cette idée-là et c'est une grande réussite dans la mesure les jeunes se sont mobilisés et même les femmes pour vraiment créer une émulation entre entre eux et au finish certainement il y aura de belles récoltes et certainement sur le terrain vous allez voir parce que les récoltes ont déjà démarré et une fois sur le terrain vous vraiment on a réussi notre pari d'avoir lancé une ASC un champ et je crois que j'en appelle donc à tous les autres collègues maires de vraiment faire de tels projets parce que c'est ça seulement qui pourra aujourd'hui arrêter cette immigration clandestine qui est à l'ordre du jour. Parce que les gens n'ont pas de qualification. Et s'ils n'ont pas de qualification, ça va être très difficile d'avoir un emploi. Sinon, ce qu'ils feront donc va être quelque chose de précaire. je crois vraiment pour nous déjà c'est un franc succès et encore bravo à toutes les ASC qui ont participé à cette initiative-là mais surtout bravo aux techniciens que sont Lamine Diouf et Cheikh Gueye mais surtout bravo au président de la zone Modou Fall qui a vraiment eu cette idée très géniale mais aussi Abi Mbow qui a coordonné toutes les activités jusqu'à maintenant mais aussi surtout bravo à la presse grâce à qui ce projet vraiment a fait le tour du, du monde. Donc, Cheikh Anta, vous autres, la Radio Ngaï, ensuite, Thiès Sud FM, à vous tous aussi, LAS, vous aussi, un grand merci. Parce que vraiment, si on par un partout donc de ce projet-là, c'est parce que vous, vous avez joué un rôle extraordinaire. Encore une fois, un grand merci. Formation avec les femmes. J'avais même proposé aussi à, comment dirais-je, à Zimbaou, de faire une projet, un projet intégré. Pourquoi Parce que si on se limite seulement sur l'agriculture, on aura des produits bruts et on va les brader, comme le dit M. au niveau des marchés et ça ne va pas, ça rapporter grand, grande chose. Et actuellement, nous sommes à la formation. Nous allons former 100 jeunes, euh, qui est vraiment magnifique. Non seulement, euh, au, au, niveau de Facebook, j'avais que si chaque année les conseils municipaux forme 100 jeunes durant 5 ans on aura 500 jeunes dans la commune et vraiment aussi ça va nous permettre de booster l'économie de notre euh, commune. Exactement euh, récemment on parle de euh, Barça ou Barsaq et euh, je n'ai pas entendu dans la commune de Koul quelqu'un qui a perdu la mort et nous rendons grâce à Dieu mais aussi nous Présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants. Et si on pérennise les formations, autant pour moi, dans les communes, les jeunes peuvent rester, peuvent avoir de quoi manger euh, et rester les, dans les villages.